asalaamaaleykum sama gars yi bienvenue sur CTGHT sama gars yi tey moo nekk sama première vidéo iPhone donc sama gars yi comprendre leen ma parce que franchement musuma def vidéo si iPhone euh, musuma sax filmer vidéo ak iPhone si mus naa filmer benn vidéo ak ay iPhone mais voilà mooy vidéo A12 bi xaw ma nax seetaan ngeen ko mais sama gars yi musuma def astuce si iPhone et tey vidéo bi moo nekk sama première vidéo astuce si iPhone et pour commencer fallait que ma trouver leen loo xamante ni dina leen neex leen loo xamante ni day cool euh, te dina leen arranger et fu may commencer mooy dama leen di wan nan ngeen di def ba genre ba xam Euh, seen mot de passe yi ngeen xamante ni utiliser ngeen ko si seen portable iPhone que mu nekk mot de passe compte Facebook euh, que mu nekk mot de passe compte Instagram wala mot de passe compte Google wala mot de passe iCloud lépp loo bëgg fàttaliku si sa iPhone nooy def ba fàttaliku ko nooy def ba xam ni lii mooy sa mot de si sa iPhone si lu yomb et pour def loolu leen rek ngay def da nga koy laaj Siri c'est très simple da koy laaj si da ngay dem nga Siri lan mooy sama mot de passe mais da koy wax si français parce que Siri déggu wolof donc pour nga activer Siri bi da ngay activer maanaam da ngay def appui long ça dépend aussi portable bi nga yore man iPhone X laa yore donc si menu demare bi lay euh, si bouton bu koy taal moom lay def appui long ensuite ma laaj ko quel est mon de passe Facebook léegi di nga gis ni Siri moom dafay déjà dafay déverrouiller damay tàppe sama code bu fekkee ni yow sa portable amul Face ID mais man Face ID laa yore donc euh, daf may def reconnaissance faciale ensuite léegi mu yóbbu ma genre wax ma ñaata compte Facebook laa connecté sama portable ba pare t'as compris donc man ñaari compte Facebook laa connecté sama portable bu fekkee ni yow benn nga yore donc da lay yóbbu directement si résultat bi léegi man damay choisir ban compte laa bëgg gis mot de bi léegi bu ma bësee si compte bi léegi daf may indil gis daf may bindal nom utilisateur bi ak mot de passe mais du sax yam foofu dalee wan itam si yan site nga mujj connecté wu ak sa mot de passe compte Facebook bi et dalay wax ndax yow sa mot de passe bi am na ñenn ñoo xamante ni am nañ ko jël nañ ko si yow ndax euh, mot de passe bi ndax comp nekk ndax da nga war a changer sa mot de passe ou pas donc yaa ngi gis donc lii nii c'est très très utile te du Facebook kese mën nga ko laaj yeneen compte yi mën naa ko laaj itam fekkee sama compte Google laa bëgg xam donc damay bës tamit si Siri ba tey quel moo mon mot de passe Google léegi reconnaissance faciale ensuite léegi mu génneel ma sama compte Google yi nga xamante ni connecté naa ko si sama biir compte portable bi sama iPhone ensuite léegi moom mu mu mu wan ma seen mot de damay cliquer juste mot de passe mu wan ma seen mot de dafa simple simple simple et que mu nekk Instagram itam dafay dox ak lépp pour wan leen ni day dox lépp dama naan euh, quel est mon mot de passe Instagram et franchement lii ba ma ko xamee ba tey dama noppalu parce que ak iPhone ñu bëri si yéen dañuy tàmm di fàtte seen ay mot de passe parce que iPhone man mi sama Face ID mooy connecté wu daanaka si lépp euh, pour ñi nga xam te ñi ngi yore ay iPhone yoo xam te ni empreinte la am seen Touch ID mooy fonctionner si lépp donc lii dama gis ni fonctionnalité bu cool la voilà. loo si xalaat comme première truc et astuce bu ma leen wan si iPhone parce que dama décidé di def juste benn astuce par vidéo parce que dama jàpp ni si lay gën a mën a wax si astuce bi si lay gën a mën a développer astuce bi donc bu fekkee ni euh, vidéo bi neex na la dama wax nga aimé ko nga like ko comme ça bu ko defee ñeneen gën ko mën a gis et nga ma jàppale itam donc itam bu fekkee ni abonné go ma fàttali nga abonné wu sama chaîne YouTube si turu ht mais itam nga suivre sama compte Instagram lépp si turu ctg ht ma lay jox dig daje si sama prochaine vidéo incha allah